Euh, ñii seetaan ba léegi ñu ngi ànd ak yéen ci li nga xam ne mooy xew-xew bi xaw ci suñu mbokk sénégalais yi ak euh, leen police xëy def nii bi ñu jógee fële ñëw nañ ci geneen kër goo xam ni it euh, la même chose noonu lañ ko fekk bàyyiwuñu fi dara ñu ngi ak kenn koo xam ne dañu expliqué ni mu demee waaye nag fii li xew fekk nañ fi benn sénégalais boo xam ne yoroon na ay document jàmbur jamono bii moom mi ngi police ama soxlawul ñuy wax tur bi nag waaye xam naa ñu informé loolu de sëñ bi nga nettali ñu naka leen police ak it lu fi jël ci valeur. waaw suma sëriñ maa ngi leen sant di leen gërëm waaw maa ngi tudd Ousmane Ousmane jaañ waaw policier nag moom dañoo ñëw xëy si fajar rek ay 6 heures matin bi ñu ñëwee fekk nañ ñu bi ñëwee bagages yi fi nekkoon yëpp ma maanaam takku na trop daal waaw bi ñëwee jën lañ yëpp waaw waaw waaw si waaw man moom li ma yoroon si bolsa moom bariwul la bëri woon sax benn bolsa laa yeneen waaw ñeneen ñeneen ñi tamit dugg nañ seen néeg jël nañ fi lu mat ay ay ay juróom-benn bolsa bëri na trop maanaam affaire daal takku na trop. waaw waaw. waaw xaalis moom jël ñu ko fi moom dëgg yàlla man sama xaalis moom bàyyi mu ko woon quoi waaw tamit jël ko fi affaire daal métti nañ dëgg yàlla wax dëgg yàlla man nag man buñ duggee si néegam man nekkuma fa woon quoi waaw nekkuma dëgg yàlla waaw bàyyiwuñ fi dara daal lu doon bagage rek tam nekk fi loo xam te dañ ko daan jaay di si yëngu loolu yëpp jël nañ lépp waaw métti na trop nag mais ne yàlla baax na ko yàlla na yàlla suturaat. après même ñoom bind nañ ko ko bi ñu jël bagage waaw waaw bi bind nañ ko wàññi nañ ko aussi mhm. waaw. Mhm. dafa amoon ay bagages yoo xam ne marque la. waaw ba marque moom am ma yoroon moom personnellement moom kii marque nekku si woon quoi mhm. ndax ay mucc laa laa yoroon doon ko jaay. mais non ay jàppante moom wax dëgg yàlla amu ci. looy lancé nga xam ne ñooy association bi fii li may wax daal mooy mooy ñun ay étranger dañoo ñëw suñu réew mi pour liggéey pour dimbali suñuy waajur waaw liggéey pour am dara dimbali suñuy su suñuy mbokk ak suñu ñëpp suñuy am di jàmm mais nag nit na mënoo nekk si dëkk pare chaque jour ñu lay buntu xataal xëy na dëgg la def di yoon di di di jaay si mbedd mais nag amuñu leneen duñ mën a def amul foo xam te mën nañ faa dem wut liggéey ak foo xam te mën nañ faa dem di fi suturloo li ñu mën a def mooy jaay si mbedd mi buñ sayoon nag autorité yi fi nekk ak président fédération bi ak ku mën a doom mu jàppale ñu waaw wax leen nee na ñun sàcc ñu fete ñu ndax mënuñoo gis ñu jaay naka sulul noonu wala ñuy def naka sulul noonu li ñuy def yow mooy liggéey pour tara suñu waajur waaw di fay sunuy liyaas di yóbbante sunuy soxna dimbale sunuy mbokk bëgg nañ nag wax dëgg yàlla ñu dimbale si nag muy président de la république ak ku mën nekk mu xam ne ñun ñi kat ay étranger lañ waaw ndax àdduna bi moom ku nekk am nga droit am am am nga droit immigré ji waaw am nga droit immigré ji am nga droit tamit ah def loo xam te nii ah moo lay jëmale kanam waaw mosoon na ne vraiment def ay jéego jéem a loolu moom defaguñ ko moom ndax yi fi xew moom ci suba waaw. waaw si waaw waaw. maanaam Kër Ndoye ci këru sénégalais yi dem ngeen ni ko ni ñu ko waxee ñëw nañu jël bagage bi nekkoon yëpp ah. Euh, dégg ngeen nag effort bi nga xam ne station bi def na ko ñëw nañu fii wax nañu si wax ne Babacar yabal na avocat fi njëkkoon a jaar pour mu réglé loolu mais daal jàpp leen lu méttee métti la xam naa du ñàkk ni mbokk Sénégal yi daañu jël programme boo xam ne xool naka lam ci jéem a jàpp doonte ni lim bu tàkku mi ngi fi te lii leen dalit euh, métti na loolu xam naa du ñàkk ni loolu incha allah dina am kon fi leen yem ak yéen ci reportage yi ba ci kanam.